voilà jërëjëf mbokk www point bawal times point com euh, la vitrine di bawal ak ñi ñu suivre ci chaîne YouTube bi nga xamante ni mooy Bawal Times euh, TV la première chaîne de télévision régionale de Diourbel ñëwaat ak yéen seen émission euh, question de l'heure tey jii on a le plaisir de recevoir Idrissa Ba Sopp Nabi yaakaar naa ko wax Sopp Nabi rek. da xalaat li nga xamante ne nii mooy édition yooyu mu doon def tey jii ñu toll ci quatrième édition mu war a am le 16 décembre fi nga xamante nii mooy quartier Thiorlakaat yi di bës boo xamante ne nii bésu buñ dibee la ak jagleel ki nga xamante ne nii mooy sant Mouhamadou Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam Idrissa naka nga def yaa ngi ci jàmm. jërëjëf Serigne Mor maa ngi ci jàmm maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte bu baax euh, ci dalal gi ñu dalal mais di la nuyu di la jaajëfal di féddali suñu kóllëre ak yow macha allah. di ñaan yàlla euh, liggéey bi nga nekk di ko liggéey Jurbel yàlla na ci yàlla gën a jàppale yàlla yëkkati li ci bu baax li nga bëgg a yóbbu ak fi nga bëgg a yóbbu Jurbel yàlla mottali ko ñu ngi am mbégte bu baax tey jàkkaarloo ak yow ci émission bu am solo bi fii ci Baol Times Serigne Mor. Mhm. jërëjëf question de l'heure nekk émission bi nga xamante ne nii mooy xew-xew jamono lépp loo xamante ni ñu ngi koy waajal dañ ko fi waxtaane di fàttali ne ku nekk mën nga ci euh, participer Idrissa ngay waajal euh, bés bi nga xamante ni mooy. bu suub sallallahu alayhi wa sallam tàkkusaanu nabi lay doon wala bés bi lay doon bii édition waaw jërëjëf Serigne Mor xam nga yonent bi moom euh, ni ma koy waxee saa su ne dafa sakkan ba ay mbiram lépp dafa sakkan ba tax na bés bi euh, journée la boo xamante ni dañuy jël lépp jagleel ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax tey bu ñu demee ba naan Idrissa rek moom la tey boo waxee Idrissa sopp na bi nga ciy teg euh, am na loo xamante ne bu ko bu la ko yàlla defalee ngay jëflanteeg sa waa jamono doo leen jéppi duñu la jéppi da ngay xam ne du yow mais kii leen bëgg di ko tagg muy Seydina Mouhamed ki ñu sàkkal bés moom la ci question boobu nag dinañ ci sawar tontu ndax euh, tàkkusaanu Seydina Mouhamed gaa la ñu woote mais journée la bés la boo xam ne ni euh, suba la ba ngoon ci ay ñaan ci ay bernde mais surtout cérémonie bi nga xam ne dañ ko fas yéene def ànd ko ak soppe yi béggee Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam yi nekk tey jii ci quatrième édition loolu di lay boobu nga xam ne nii soppe euh, soppe nabi moo koy def muy tàkkusaanu Muhammadu Rasulullah di ko delloo njukkeel di ko santaat bu baax tey Idrissa tey dégg la ko waxee lépp loo mel gannaaw yàlla cur eh, woowu ak dàkkal eh, li nga teg ci ginnaaw tax na loolu gën a fës mais tey idi lan moo indi sababu nga def première édition ba tey baax fi. jërëjëf Serigne Mor eh, loolu yi dañuy sawar ci tontu ci ndax damay wax ni bi ñu nekkee ay ndaw la ñu ko bëggoon mais peut-être suñu suñu suñu loxo joteewul fi ñu ko bëggee woon. bi ñu demee nag ba nekk fenn fi yegg fenn fi ci tàgg Seydina Muhammad ñu nekkat gannaaw yonent bi lu ñu am moom la ku ñu xam moom la jot nañu delloo ko njukkal njukkal gi ñu koy delloo du ko ne dañuy jël ay xaalis di maye wala dara mais ñu sàkk bés bu ñu xëyee euh, def ci ay ñaan ba ngoon gi jot ñu tàntal Seydina Muhammad tag ñi doon ñuy tagg yonent bi ñi nga xam ne dañ doon xew xewle di ñu woo ñun ñu woo leen ñu ñëw taggal ñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu si am mbégte yëgaat ne aussi ñu ngi renouveler suñu cofeel ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ñu sàkk bés bi daal depuis première édition bi ba léegi delloo njukkal Seydina Mouhamed moo tax ñu jóg di ko def. Mm-hmm. Euh, boo sàkkee bés boobu euh, maanaam sant ko euh, ñiy ñëw ci commune bi rek la ñuy wala dañu jógee ci Sénégal fu ne ci departement bi. jërëjëf Serigne Mor loolu it question la bu am solo bés bi dañ ko daan def weeru koor bëri na ñoo xam ne dañ ci daan bëgg a ñëw mais koor ku nekk xam ne dafa xat. mag ñi aussi daañu bëgg a ñëw mais bu ñu ñëwee duñu fa yàgg ci biir bâche bi aussi da ngay sentir ne tàng na te weeru koor dafa xaw a metti xiif ak mar mënul ànd ak yenn coono yi loolu moo ñu poussé tey ñu génne ko def ko tàkkusaanu Seydina Mohamed mais fu nekk ci ci Sénégal euh, ba ci nekk bitim réew sax dañuy am yéene ñëw parfois ñu ñëw mu fekk leen fi ñu ñëw ànd ak ñun ci bés bi mais Sénégal fu nekk nit dafay jóge wala nit yónnee fa ndaw wala nit euh, di woote di béggee bés bi rawatina nag dëkk bi ñu dëkk di Jurbel ñoom ñoom ñoom bés bi seen bés bi ñoo ko moom waaw mbokk yi di leen fàttali yéen ak seen euh, émission bi nga xamante ne nii mooy euh, question de l'heure ñuy waxtaan li nga xamante ne nii mooy xew-xew yi ñuy dëgmal euh, Idrissa programme bi laa ko sànq du ko ci. bu baax a baax mu di bés lay doon. mais ngoon gi la ñu consacré xam ne mooy cérémonie officielle bi yam suba gi lu ñuy def dañu wàcce kaamil wala nan lay demee nan lay doxee ci bés bi. jërëjëf Serigne Mor suba gi ni ñu ci ni ñu ko bëggee. ndax yàlla euh, jaam day day sabablu yàlla yàlla mooy mooy mottali euh, bu ñu xëyee ci bés bi ni ñu ko bëggee mooy jàng alxuraan d'ailleurs fii may wax ak yow bëri na sëriñ yoo xamante ne ñun ñoo leen di defal euh, seen ay programme di leen defal présentation yëpp fi mu ne nii tembe jàng jàngagum nañ six kaamil ngir jagleel ko bés bi te fii ak bés ba incha allah am nañu yaakaar ne dana yokk bu baax a baax ci bés bi bu ñu xëyee li ñu bëgg mooy wàcce ay kaamil jàng alxuraan ànd koog seen daara yi ak taalibe yi ndax ñun lu ñu am alxuraan la moom la ñu sañ a jàng ngir gàttandoo ko suñu bés bi gannaaw ci jàng alxuraan bi dinañu amal wasifa gannaaw ay taalibe seex lañ ñu def mbalaan mi géew wasifa gannaaw ci loolu aussi ñu yendoo berndeel gan ñi ñu jógee fu sori ak ñu dëkk ci dëkk bi dëkkandoo yeeg yëpp mbokk yi ñëw ñu ber ànd ak ñoom bernde def ay waxtaan eh, ci journée bi ci biir eh, journée boobu dinañ ci amal ay waxtaan ndax toogaay bi ñuy toog amaana ñu dugg ci yëfi jàmbur ak yeneen ñu gagné temps bi def ay waxtaan euh, genre tour de famille waxtaan ci mbokk yi waxtaan ci dëkkandoo ay waxtaan aussi société bi ci naka la ñuy dundee ak yooyu bu ñu añee ba noppi nag daal di nekk ci li nga xam ne mooy mise en place bi foofu ba 17h 17h30 incha allahu rabbi fa la ñuy tàmbalee cérémonie bi ba heure bu mu jeexee bu yàlla. mbokk yi yaakaar naa ne yéen ko déggandoo programme bi noonu la tuddee yéen émission question de fii ci. Baol Times TV la première chaîne de télévision régionale de Diourbel ci kanam tuuti bu neex yàlla loolu da ko gis euh, di leen santaat bu baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu xaajal premier partie euh, émission bi euh, di fàttali ne ñi nga xamante ni bëgg nañ di ci participer saa su nekk mën nañ ci woote ci 33 971 50 wala ñu woote 76 376 91 91 wala ñu woote 78 337 64 64 saa yu ñu woowee da ngeen jot. boo leen bëggee bokk ci émission yi nga xamante ni mooy émission Baol Times yi di ñu ñëw sànq ci mbalaanu wasifa bi ngay wax loolu dañuy gis ni ñi di ko def boo ñu ko doon jàngal wala boo ñu doon wax moo maanaam taarix googu lan la. jërëjëf sëriñ Mor euh, xam nga wasifa moom. dafa bokk ci sàttu tarixa bi. taalibe cheikh bu ko jëlee euh, dafa dafa nekk ci moom si obligatoire chaque jour mu koy def benn yoon. am na ñu koy def ñaari yoon ci bés bi mais obligatoire bi mooy benn yoon ci bés bi. Euh, bu la ko yàlla maye na ngoo koy def ay yoon wala ñaari yoon ci bés bi c'est normal waaye li waral ñuy tiim mbalaan mi di ko def mooy mbooloo bi lañ ci bëgg kenn ku ci nekk boo wéetee def ko euh, terewul am nga wasifa am nga am nga werdi def nga ko ni ñu la ko sante mais mbooloo bi loo gis mbooloo def ci ëpp doole julli kenn nit ak julli mbooloo ni mu utantee noonu la wasifa kenn nit ak wasifa mbooloo utantee tey moor li muy def benn muy lu baax mu wéet def ko bu àndee ak mbooloo ci la tiyaaba bi di ëpp doole mm-hmm. loolu nag tax wasifa ñu koy def mais li tax ñu koy def ci jour bi mooy delloo njukkal Seyduna Muhammad mais ñaanal aussi suñu way dawlu yi ndax ñu leen fàtte moo boo nekkee ak nit ba mu jóge fi am nga droit wala war na ci yow nga fàttaliku ko di ko defal ay ñaan wasifa boobu nag dañ koy def wasifa boo xam ne du'a lay doon ñaanale ko suñu waay dawlu yi mais aussi également ñaan ci réew mi jàpp loolu mooy wasifa jërëjëf yaakaar naa ne kon mu nekk bés boo xamante ni euh, bésub sant la bés boo xamante ni dañuy dikk feddaliwaat suñu cofeel ak suñu euh, bëgg-bëgg ci ki nga xamante ni mooy gën gi mbindee sax xam ne ni lépp yàlla bind rek moom la idi bés buñ koy wax saa su nekk dana am kuñ koy jagleel kañ lañ jagleel bés euh, loolu nag dama ciy kontaan te xam naa su ma ko waxee diñ ci kontaan ndax da olof dafay wax ne bu lëg màccee alom na ko gërëmee coy hmm. kenn nag ci ñun koo xam ne mooy suñu wasila moo nu jox tarixa bi di suñu bàyyi ci diini ji di suñu bàyyi ci lépp muy Serigne Pape Thierno Kandji Baye Daara moom yaakaar naa bu ñu ko tuddee euh, turam benn la ci ci ci àdduna bi Baye Daara bëriwut loo koy dégg te Serigne Pape Kandji mi Baye Daara dafa defal Jurbel lu rëy euh, saa yoo toogeek moom mu jàngalaat la lu la lënt ci diine boo gisee ak moom sa aajo faju loolu nag ñu sukkandiku ci ak taxawu gi muy taxawu daara yi diine ji ak lépp ba ci wàllu santé bi mu ciy yëngu ñu jël bës bi nag jagleel ko ko moom itam ngir delloo ko njukkal wan ko ne taxawaay bi mu am ci ñun gis nañu ko looloo waral ñu dara jaale ko bés bi ak ñeneen ak ñeneen mais ki nga xam ne daal bu ñuy wax lu officiel mooy Serigne Pape ñi Kandji Baye Dara. jërëjëf Idi ñoo ngi waaj yëkkati jataay bi tey boo doon woo ci bés bi ñaar nga ci woo. waaw Mor di ci woo mbooleem ñu baax ñi rek. ci woo mbooleem ñu baax ci Jurbel fii ñu am fi ay kilifa yu baax waa kër maam Thierno Kandji waa kër maam Mbacke Tandian euh, sa suñu sëriñ sëriñ Modou Mahfouz Mbacke sëriñ làmp ak mbooleem ñi nekk ci réew mi mbooleem rawatina waa Jurbel sëriñ ñu nekk Jurbel yëpp sëriñ daara yi ustaas yi Euh, politiciens yi parce que ci ci ñun la ñu bokk en boo ko waxee nit ñi gisee ko neneen mais cité wuñ ci benn tur mais ay autorité lañ ci réew mi lañ bokk ay nit lañ comme ñun lépp lu ñu xewle war nañ ca dem ndax ñoom bu ñu xewlee dañ ñuy woo ñun ñu dem moo tax ñu ngi ci woo ñëpp ci sàkku seen teewaay ci bës bi xanaa li ciy bees ma wax la ko rek mooy seen askan yi sa xarit moom mooy amal waxtaan bi moo koy amal moo koy amal sëñ mm. Mor ak groupe sopp na bi ñoom ñooy amal animation bi mais yemul ci ñoom kese mbooleem tàggkatu Seydina Mouhamed yi nekk Jurbel ñoom incha allahu rabbi euh, ñoom ñooy amal animation mais sama invité d'honneur muy Serigne Diagne na bi di tàggkatu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. jërëjëf mbokk yi yaakaar naa yéen ko déggandoo li nga xamante ni mooy la 16 décembre mm. bu ko kenn euh, tardé muy bés bi nga xamante ne nii kenn sax ëpp na mu tardé ko muy bés bu ñu jagleel sant ki nga xamante ne nii njukkeel ki nga xamante nii mooy euh, xayrul xarxilaahi muy Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Idrissa Ba sopp na bi bokk ak ñun liggéey bi di participer ci plateau yor ay émission dina yaakaar naa moo ko def mi ngi ci woo ñëpp bàyyiwul kenn comme ni mu ko waxee Idi euh, baat bu mujj bi la lay doon. jërëjëf Serigne Mor xanaa baat bu mujj bi rek di soññaat nit ñi ci suñu scène bi nga xam ne amuñu sudul moom mm-hmm. la vitrine di Baol mm-hmm. Euh, Baol Times nu mu koy waxee saa su ne di profité jaajëfal gars yi yëpp macha allah le PDG la Alhaji Mor Sène di sama xarit mais jaajëfal seen Fallou caméraman bi ak mbooleem techniciens yi nekk ci ci Baol ñoom mun naa ne sama invité d'honneur lañ ndax ci biir kër gi laa bokk maa ngi leen ciy woo bu baax waaye Mor kàdd gu mujj gi daal mooy nañu xam ne bés bi. wooleeluñ ko wooteeluñ ko ma sàmba wooteeluñ ko ma demba mm-hmm. bésu sayduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam moom nag yonent bi euh, sëriñ tubaa daf ko ni woon lil mustapha xayri xalqillaahi mm-hmm. manzilatun lahu jihat nahwaha kullal wara xaaw mm-hmm. lam ci teg nag gën nañoo soññ ñun pour ñu koy taxawalal bés raamal wara nay la fadlin musrixiina lahu wal fadlu inda rasulillahi xaraaru waaye ñaanu Serigne Touba bi yàlla nañ ci làmb ñun ñëpp waftax lana kulla baabin kunta fatihahu li saalihiina min al xayraati yàlla invitation baa ngo incha allahu rabbi le 16 décembre tàkkusaanu yonent bi woo naa ci mboolem bu baax sëñ Mor. mbokk yi ne ko déggoo c'est ici la vitrine du Baol www.baoltimes.com ngeen mën kaa am ci Google ak li nga xamante ni mooy chaîne chaîne YouTube Baol Times TV la première chaîne de télévision régionale de Diourbel c'était votre émission question de l'heure ñu dalaloon Idrissa Ba sopp na bi ñu waaj bés bi le 16 décembre di leen jox dox daje ak benn invité jërë ngeen jëf ku bëgg a 37 64 64 wala nga woote 33 971 50 50 jërë ngeen jëf.